بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلين دي دلال جنب ci suñu keppaarug weeru koor tey jii di fukki fan ak ñaar ci weer wu màgg wi di suñu fukkeelu daje ak ñaarit ci li nga xam ne mooy sous l'ombre du ramadan démb ña nga jeexale woon ak yéen ci mbir bu ñàng lool mbir bu jar di xalaat lool mbir mu jar di waajal lool te muy tëraay ba nga xam ne yaa ngi koy tëdd ci bàmmeel mbokk jullit tëraayu bàmmeel mën naa yàgg lool buñ ko méngee léegi li ngay dund ci kaw suuf bu ñu dem ca yonent yàlla Isa ma fa tëdd lu ëpp ñaari junni at bu ñu dem ca yonent yàlla Ibrahim nga xam ne jege nekk quatre mille wala cinq mille ans bul dem ca yonent yàlla nuux nga xam ne yàlla xam waaye niñ ñëw ci ki nga xam ne suñub yonent la koo xam ne mi ngi ñëw ci mu jiilub jamono muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ki saabaam ñoom rek def nañ ci biir suuf junniy at ak ñeenti téeméer nga xool nag yonent boobu ñaata at la dund mi ngi dund 63 ans juróom benn fukk ak ñett la dund ci kaw suuf tey def na junni at ak ñeenti téeméer ci biir suuf moo ne yéefiir ya ko weddi woon it doon ko xeex gu dégg bëccëg ñoom it def nañ junni at ak ñeenti téeméer ci biir suuf imma ñu def ko ci la nga xam ne mooy jardin ci jardin àjjana yi te mooy ña gëm yonente ba topp ko wala ñoom ñëpp depuis junni at ak ñeenti téeméer ñi ngi nekkoon ca la nga xam ne mooy paxum sawara mu ñuy boyal guddeeg bëccëg di leen ca taal loolu nag mbokk jullit comme xamugoo yow la lay xaar nu mu demee ndax cab jardin nga jëm wala ca paxum sawara nga jëm foo toll war nga boole tiit ak yaakaar loo xam ci lu baax nga def ko ngir yàlla subhanahu wa taala boole ñu musal la ca gën a am solo it di ñaan ñaan gañu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngaloon te mooy allahuma inni aunzu bika min azabil qabr foo tollu del ñaan yàlla musal la ca la nga xam ne mooy mbëggalum bàmmeel mbokk noonu la nit ñi di dugge bàmmeel benn par benn benn par benn circonstance rek mooy tax ñi boole ñaari ñëpp ci bàmmeel waaye nag bis mi ngi ñëw ci bis yi suñu borom yàlla fas yéene jeexal kaw suuf su boobaa day dana indi ay lu ay mbir yu ñàng yoo xamee ne nii moom mi bind mooy ki xam moo ñu ko wax suñu borom yàlla nee na bisi ñëw iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza aljibaalu suyirat wa iza alishaaru utilat wa iza alwuxuushu xushirat wa ida albihaaru sujjirat wa ida alnufuusu zuwijat mi ngi noonu wa ida almawudatu suilat bi ayi zanbin qutilat wa ida suhufu nushrat ila axiri suura suñu boroom bis dana ñëw ci bis yi mu indi désordre jaxase asamaan ak suuf bi mu nose nii jant bi mu rëddal aw yoonam du ko wàcc weer wa biddiw ya suñu borom xëy xëy explosel jant ba explosel weer wa explosel biddiw yi asamaan mel nekk wardatal ka wardatal ka dihaan asamaan yépp rose ngir tàngaay boo xamee ne nii doomu aadama mënu ko imaginer suñu borom explosel suuf mi ngi noonu wa humilatil ardu wal jibal fa dukkata dakkatan wahida benn explosion boo xam ne mboolem li nekk ci ay montagne ci kaw suuf benn explosion boobu moo koy def mu nekk poussière kal ihinil manfuush mbokk loolu ku ko xalaat xam ne ñàng na lool moo tax ña koy fekke suñu borom mu ni يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تدعو يوم ترونها سن برمون يوم ترونها تزأل كل مرضعة عما أرضات وتدعو كل حمل حملها وتدعو كل ذات حمل حملها بسنجي نيو yërëngi rëngi bi si pénc doomu aadama yi dañ ànd ak tiitaange boo xamee ne nii dana jéggi dayu lool soxna sum fekkoon ngay nàmpal sa doom danga ko sànni kum fekkoon nga ëmb danga avorté nga gis ni ñépp jàpp dañoo mandi fekk na mandi wuñu walakin azaballahi shadid waaye mbugalum yàlla mooy la tar loolee mbokk la jullit war a gëm mboolem li nekk ci asamaan ak suuf suñu boroom da koy def delloo ko mu nekkaat bu cher mbokk suñu boroom yàlla loolu lay melal ci ne ci suratu zumar mu ne wa nufixa fi suur fa saiqa man fi lsamawati wa man fi l ardi illa man shaa allah thumma nufixa fihi uxra fa ida hum qiyaamun yanzuruun suñu boroom yàlla am na benn béjjén bu mu bind béjjén ba moo gën a yaatu asamaan yi benn jaamam la ko jox muy israfil heure bu ko waxee na ko ëf ko su ko ëfee loolu ma leen waxoon sànq lépp am doomu aadama yi faatu malaaka ya faatu jinneeka bàyyi ma lépp faatu suñu borom yàlla bàyyi ba mu soob ko mu santaat ko mu ëfaat ko beneen ëf doomu aadama yépp nag daldi dékki taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala loole mooy la nga xam ne nii moom la yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon wax ne ma bayna nafqatayn arbauna sana summa yunzilu llahu min alsamai maan fa yanbutuna kama yanbutu lbaql yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na amul lenn suñu borom bu ko soobee lay jël nag diggante ñaari ëf yooyu diiru ñeent fukki fan bu ca paree lay yónnee benn taw taw bi duggaat ci biir suuf soose doomu aadama yi daldi fay defarwaat daldi fay meññaat comme na nga xamee ne ay lujum noonu la ñuy màgge ci biir suuf ba seen jëmm yépp mat ca la leen suñu borom yàlla jël wa ala doog a génne génn googu mbokk julit da ngay gis ne mooy li gën a teqalee diggante ñi gëm ak ñi weddi ca mooy yéeféer bokk na réeral gi ko yàlla di réeral mënul nangu ne nit ki dee ba nekk ay yax ak poussière ëllëgi ki si biir dana dékkiwaat comme niñ koy waxee wa kaanu yaquluun a ida mitna wa kunna turaban wa izama a inna la mabuusuun aw aabaa'una al awwaluun sunu borom mi ngi nettali suratul waaqia ne yéeféer yi day dañu naan waaw ndax ñun bis bu ñu deeyee ba réer ci biir suuf nekk ay yax ak poussière ndax jàpp nga ne loolee daan jugaat di taxaw waxumaa nag sunu bàyyi jëkk dee nga xam ne ñoom seeni yax sax ci gisutu ko loolee mbokk da ngay gis mooy li yéeféer yi naan daan tontu mboolem yonent yépp yépp yépp ya nga xam ne nii jaaroon nañ fi waaye suñu borom suñu borom yàlla ngir woo borom xel yi boo delloo ca suratul xaj mi ngi naanu yaa ayuha nnas in kuntum fi raybin min al ba's fa inna xalaqnaakum min turab ala kulli xaal suñu borom lan lay wax foofu waaye yéen doomu aadama yi sikk sàkk na dana leen dekkal bis bu ngeen delloo ci biir suuf xanaa xamu leen ne man ci suuf laa leen jële woon bind leen gannaaw ba seen maam ma ma jëkk bind di aadama ma génne ci moom lii di nutfa di ndox ndox moomee ca laa leen bind yéen moo la seen ca ndox ma dama ko jël wëlbati ko def ko muy lumbu deret wëlbati ko def ko muy lumbu yàpp yàpp boobu ma soppi ko def ko yax yax yooyee ma ñëw muur ko def ko bind ga ma neex génne leen ngeen nekk ay ay ay ay ay liir gannaaw ba ngeen dem ba yegg ci seen digg kàttan am ca ñoo xam ne dinaa leen bàyyi ñu dund ba màgget ba xubbi daas xamatuñu dara loolee mbokk benn misaal bu rëy bu ñu yàllay wan ne moom mi jële doomu aadama ci phase yooyu di ko wëlbati di ko wëlbati ba mu génn juddu mu koy wëlbati ba mu nekkum ponkol wëlbati ko wat ko ba mu nekk màgget mu sëgg dañuy wan ne yàlla moom am na kattan ci doomu aadama bu delloo nekk poussière yàlla dekkalaat ko ndax ci poussière boobu la jëlee woon sunu moom aadama loolu di misaal bu njëkk suñu borom teg ca it ci même saar bi mu ne xoolal suuf bi ngay gis mu wow koŋ koŋ amul benn ñax suñu borom nee na ma wàcce ci ndox mu daal di commencé funki génne àll boo xam ne dafa naat verte dem génne façon gàncax bu nekk yàlla mi am kattan dekkal suuf boobee yàlla moom mu am kattan de dekkal ña nga xam ne dañoo faatu ci jamono boo xam ne jamono bu ko neex la ca loolu kon mbokku falilahi alhamdu bu dee ne jullit ñi moom amuñu problème boobu ci ne yàlla subhanahu wa taala dana dekkal mboolem ña nga xame ne ni dañoo deewoon ñi nga xam ne it ñooy yahud yi nasaraan yi gëm nañ loolu fa ñuy wuutee kay mooy bu ñuy dekkee naka la mbir muy demee wuute boobuy am ca foofu lay wuutee waaye dekk gi moom ñi am diine jële jële kaw asamaan ñoom bokk nañ ko gëm mbokk suñu borom yàlla bu defee ak ñun li ñuy tuddee albas gannaaw ba nag am na beneen étape te muy ñeenteelu étape ci étape bu la nga xam ne gëm àllaaxira mooy li ñuy tuddee alxashr suñu borom nag di dajale ay jaamam mbokk jaam yooyu dañoo tasaaroo ci kaw suuf am na ñu ñu suul Amérique am ñu suul Japon am ñoo xam ne ñu ngi leen suuloon ci biir géej ya am ñu ñu suuloon ca montagne ya am ñoo xam ne nii fu ñu mën a dal na doon ay gaynde leen nekkoon wala lu mën a doon suñu borom yàlla ku nekk xam na fan la sa yaram jaar su ko defee. ci kattanam ñépp lay génne taxawal leen loolu nag mbokk nekk mbir bu ñàng boo xamee ne nii bu koy imaginer rek dana doy waar yàlla génne mboolem doomu aadama yi fi ma sa jaar ndax bu kereegee dañu nekk mille milliards yàlla xam mboolemi jinne yi fi ma sa jaar mboolemu gayndeeg jiit ak jaan yi fi ma sa jaar mboolem picc yi fi ma sa jaar mboolem lu doon ay jën ak i baleen li fi mas a jaar suñu borom mu ne kama badana awala xalqin nuiduhu waadan alayna inna kunna failin suñu borom mu ne lu ma mas a bind ci kaw suuf danaa ko indi yowmal qiyaama loolu mbir la boo xam ne dog naa ci ba pare looloo tax mbokk daje ba doon daje bu ñàng lool bu tiitlu lool ba suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Aïcha laaj na ko waaw fekk def na doomu aadama yi bu ñu leen génne seen bàmmeel yaramu neen lañuy def tànku neen lañuy def lañu dagge woon ci ñoom ba ñuy jong sax day dellusi suñu ay Aysa na ko waaw yow mi yàlla yónni yaramu neen góor ak jigéen ba loolu amee yonent ay sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko al amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd mu ne ko ay Aysa mbir ma gën naa ñàng ci doomu aadama di xalaat naan ki ma dendal góor la wala jigéen te bu keral gay tiitaange ba dana yóbbu xel ñépp moom lañu suñu borom di nettali ci téeréem bu tedd bi yawma yafirru al mar'u min axi wa ummihi wa abi wa saahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni mbokk yawmal qiyaama bu amee doomu aadama bu jaaxle ci àdduna kam yi jëkk a xalaat mooy frère am ngir mu jàppale ko bu doon te ne ni am tiit la wala xeex la ak yépp frère dana xalaat frère ba gannaaw ba it dana xalaat ay waajuram dana xalaat ndeyam baayam dana xalaat la nga xamee ni nii moom mooy soxnaam wala dana xalaat jëkkëram waaye suñu borom nee ne tiitaange ba yowmal qiyaama ku nekk di ragal ndax da nga mucc ak doo mucc soo gisee sa ndey da ngay da nga koy daw heure bu ñëwee di sàkku ci yow benn tuyaaba rek nga daw woon ko gannaaw sa bàyyi sa frère kenn du xalaat dimbali kenn ndax ku nekk ci ñoom da nga am loola doy sëkk sëkk sëkk sëkk ca loola doy sëkk soosee dana dem ba yegg ci yonent yi alayhim salaam loolee comme ni muy nar a ñëwee ca la nga xam ne mooy xadiisu shafaa ca mooy ràmm gu màgg na muy demee koo gis la muy wax mooy nafsi nafsi ay nu may def ba mucc tey ay nu may def ba mucc tey amaa nañu def ba keneen mucc loolee moom mbokk xel xalaatul loolu looloo tax mbokk njuumte munta paase deman kat suñ caam mii mooy sama yaakaaru àdduna ak yaakaari àllaaxira xanaa suñ caam amul ndey xanaa amul baay xanaa amul frère suñ borom nee na bu ko régee da ngay daw sa ndey daw sa baay daw sa frère suñ càmm mën naa daw ndeyam daw frère am daw baayam ba pare ñëw di la lijjantil say mbir yow mbokk loolu bu leen ci seytaane nax xoolal chem suñ càmm la mu nekk bu doon dëppoon ak sunna nga roy ko ca loolu ngir du ay mbiram daa dëppook sunna ëllëg day mën ngeen a ànd tabbi aljanna amma nag bis boo dof dofloo ba bàyyi fii li yàlla santaane jàpp ne ah yoonu suñ càmm bii kat moom mooy yoon bi gën a direct mooy yoon bi ëpp yaakaar ba tax nga yaakaar loolee ba ba fa la yàlla santaane wallahi boo demee yowmal qiyaama suñ càmm dana denc yow yàlla denc yow nga torox doo am kenn koo xam ne ku lay dimbali la mbokk mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax kon mbokk fanga gaangook yàlla dajale na ay jaamam ñépp ñu sësaloo rankalikoo yonent bi alayhi salaam dolli ca mbir bu ñang mooy jant bee yàlla teggi woon yàlla daa di koy indiwaat daa di ne tudd na shams yowma alqiyaama min alxalqi xatta takuna minhum ka miqdaari miil fa yakunu annaasu ala qadri acmaalihim fi laraq فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الإلجاما رواه مسلم باكو سوني بروم دانا داجالي جامي رانكالي لين indi jant bi mu tiim leen li ñuy tudde miil bu dee la ca gën a gudd lañ ca wax mooy li ñuy tudde maay de un kilomètre et demi à peu près mbokk xoolal jant bi scientifique yi nee nañ mi ngi nekk à cent cinquante millions de kilomètres la sore suuf si te léeg-léeg tàngaay ba mu ñuy yónnee day rey lu bari ci waa suuf waaw xoolal nag cent cinquante millions bu doon te ne suñu borom da koo xaaj ci digg bi rek doomu aadama suuf yépp takk jëppit waaw xoolal nag yowmal qiyaama yàlla wàcc ko nag ba mu tiim leen loo xam ne matul deux kilomètres mbokk loolu kon mbir la boo xam ne lay attey àllaaxira du attey al adduna ndax bu doon attey adduna kon nekkoon nañu poussière boo xam ne nii takk nañ jëppit waaye àllaaxira mbokk ak dee amu fa la fa am muy yëg-yëg su ko defee nit ñi di yëg tàngaayu jant ba yëg-yëg boo xam ne jéggi na dayoo yonent bi aleyhi salaam nee na ñaq dana génne ci ñoom boo xam ne ñii dana ñëw ba seeni cheville seeni dojor ñii dana ñëw ba seeni oom ñii mu ñëw ba seen ndigg ñii mu ñëw ba seen mbagg am ñoo xam ne day ñëw ba xam ne seen tuñ lay nekk su ko defee moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan wujuhun yawma idin musfira daahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idin alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul ulaika alkafaratu alfajara suñu borom yàlla subhanahu wa taala bu dajalee noonu ay jaamam dana am jaam yum ca sempi keral leen ci keroog arsham ñooñi yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñoom gannaaw loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala bàyyi say-say sa ñuy xuus ca seen ñaq ma ci diiru rëngi-rëngi bis pénc dana mat juróom fukki junni ci ay at maa ngi lay wax sànq état bu bàmmeel na am yow boo dee ñaata at nga def bàmmeel yàlla ko xam jox naa la benn échantillon a rasul sallallahu alayhi wasallam moo ki sahabaam def nañ junni at ak ñeenti téeméer mais yow mi ngi boo dee ñaata nga fay def yàlla moo xam amma bis pénc ñi jaarul woon fi neex yàlla place ba ñuy attee jaam yi rek daañ fa def juróom fukki junni at avant ñu dem sawara amma bu dee jullit yi ñoom yàlla subhanahu wa taala dana ko woyefal ci ñoom nañu toppe woon yàlla ci kaw suuf ba ña nga xam ne dañoo dëppoo woon ak yonent yi ay jëf ñoom rëngi-rëngi bis penc yooyu cinquante mille ans yooyu yàlla da koy woyefal ci ñoom ba mu mel ni diggante tisbaar ak takkusaan moo tax suñu boroom di wax ne alal kaafiriin xayru yasiir yowmal qiyaama kenn di woyefalal yéeféeri bis penc amma juri di moom yàlla subhaanahu wa taala dana ko woyefal ci ñoom ba diir ba nekk diggante tisbaar ak takkusaan gannaaw ba nag ku nekk ci ñoom la nga mérito ci ay coono nga dund ko avant nag yàlla di indi ak xeccaleem jëmale ko ci jaamam yi nga xam ne nii daf leen a gëm jaam yoo xam ne nii dañ koo gëm mbokk mi ngi noonu mbokk kon la nga xamee ne nii mooy étape ba ca topp di juróom benneelu mbir bi nga war a gëm ca la nga xamee ni nii moom mooy lii am gannaaw doomu aadama bi mu faatoo mu dugg ci gëm alaaxira mooy li ñuy tudde alxisaab yowmul xisaab mbokk jullit lu jara waajal la maa ngi ci fàttali lu bari ci sunu tafsir yi suñu benn góor gu ñuy tuddee góor gi Dramane Diallo bi amoon taxawaay bu màgg ci sunu jàkka ji yal na yàlla fay ko daana wax ni bu dul woon ak yowmul xisaab man danaa nekk milliardaire yàlla ubbi woon na ñeel ko ay bunt yoo xam ne mënoon na ca am alal ca du ko yàqal dara waaye mu bàyyi woon xel yowmul xisaab ba nga xamee ni lu bari ci sunu waa jàkka ji buñ ne yowmul xisaab rek sunu xel dem ci moom ca ndaw la bu immigré woon dem Europe def fa plus de trente ans loolu itamit di message boo xam ne yow mi nekk bitim réew nga la waay bàyyil xel yow mu la xisaab tey yaa ngi Amérique yaa ngi Europe yaa ngi Espagne waaye fan nga mujjee bis dana ñëw nga bàyyi lépp yi àdduna taxaw yaramu neen étage yaag kat-kat yaag compte bancaire yaag yépp des gannaaw ñu taxawal la nag fas yéene la xisaab ci say jëf mbokk loolu yi suñu borom nettali na ko ci place yu bari ci alquran bokk na ci li muy wax wa xashiat al aswaatu lirrahman fala tasmau illa hamsa su yàlla dajalee jaam yi ñépp nan pat kenn du ñemee wax doo digg lu dul ay déeyante suñu borom mu ne yawma idin la tanfau shafaatu illa man azina lahu rrahman wa radiya lahu qawla bu keroogee amul benn ràmm buy jëriñ lu dul koo xam ne yàlla ko jox ndigal ca gërëm lam nar a wax yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxiituuna bihi ilma ndax yàlla rek moo xam lañ jiitaloon xam lañ bàyyi gannaaw ceegi moom kenn xamul dara ci xam-xamam ba lu dul la ko ca neex wa anatil wujuhu lil xayi al qayum keroog la kanam yépp di toroxlu ñeel yàlla mi nga xam ne mooy ki dund ca taxawe lépp wa qad xaaba man xamala zulma keroog day dana perte képp koo xam ne danga yenn ak tooñ indaale ko yowmal qiyaama mbokk su yàlla seetaanee jaam yi taxawaay ba tar na tiitaange ba tar na coono ba metti na la ko soob ci ay at ca la suñu borom yàlla nag doog a xelal lenn ci ay jaam ñu dem ci bay aadama ay bay aadama ñaanal yàlla mu xisaab ñu ñii dem àjjana dem àjjana ñii dem sawara dem sawara aadama na leen man mi nga xam ne yàlla damaa yóbbu woon àjjana ne ma bul laal fenn man may dem daa di ne ma fu la neex demal garab gi rek laa ne bu ko jege yemuma ci jege garab ga waaye ma lekk ca mag sama soxna man kay nafsi nafsi ndax danaa mucc tey ndax danaa mucc tey dem leen seeti yonent yàlla nuux ñu ñëw ci nuux wax ko lañ ko wax yow la yàlla jëkk yónni ci yonent mu ne leen déedéet nafsi nafsi maa doon laaj yàlla ci sama doom maa laaj yàlla mu alak suuf man kay nafsi nafsi dem leen seeti ibrahim ñu dem ci ibrahima alayhi salaam ibrahima jox leen ay ngànt man kat maa waxoon la nga xamee ni nii ay amul ca ne xërëm ya xërëm yee ko màbb man maa waxoon ne saarati mi sama sër la maa waxoon damaa feebar ci loolu lépp sax bam bam bam ba mu koy wax ngir défendre diine taxoon waaye loolu tiitlu tiitloo na ko ba tax mu ne nafsi nafsi man kay sama bakkante sama bakkan dem leen seeti Moussa ñu dem ci Moussa muy indi ay layam dem leen seeti Isa Isa bañ ko ko waxee mu ne loolu mënuma ci dara ñemewuma ko sax kenn ñemewu ko kenn dong la ko yàlla jagleel muy comme muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla baal na ko lu mas a def ak lu mu nar a def dem leen ci muhammad biñ ñëwee ci muhammad mu ne ana laha man la yàlla jagleeloon loolu muy shafaatul kubra di ramm ko màgg ga yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nee na ca lay jóge ñëw daal di sujjuut di tagg yàlla suñu borom yàlla xamal ma ci sama sujjuut boobu ay turam ak ay sabbaal ak ay bàkk yoo xam ne xamaguma ko léegi su ko defee ma ñaan ko ca bàkk ko ca ca la may wax nag ne ma muhammad sigil ñaanal ma may la ràmmul ñu may la nga ràmm yonent boobu daal di jóg ne ay yàlla ummati ummati ummati maa ngi lay ñaan nga dimbi li ma xetti li ma baalal ma sama xet bi mbokk ci mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ni tey lu ëpp ci jullit ñi réere nañ ko da ngay dem ci place ñuy tudd aw turam kenn du yëngu waaye ñu tudd kenn kuñ jàpp ne daa jaaroon ci aw yoonam ñépp fette xondoo da ngay dem ci doomu aadama yi bu ñuy waat indi turu ma sàmba bu ñuy ñaanalante indi turu ma sàmba fàtte yonent yàlla muhammad bi nga xam ne allaxira amul kenn koo xam ne nii nar naa texe lu dul ci gannaawam lay lay nekk yàlla jox ko liwaawul hamd muy drapeau cant bi nuux ci gannaawam lay nekk aadama ibrahim muusa isa ñépp ci gannaawam lañ nekk képp ko nar a texe ci gannaawam lañ nekk ngalawaay nañ delloowaat yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne muy cir ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala jox na ko ci ñun ca muy gannaaw yàlla du ñu bëgg keneen ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy gënal suñuy ndey ak suñuy bàyyi suñuy sëriñ ak suñuy imaam suñuy soxna ak suñuy bakkan lépp yonent boobu moo ñu ko moo ñu ko gënal ndax lim ñu indil ci àdduna yàlla jaarale ko ci moom ci xéewal jaaralewu ko ci kenn allaaxira itamit lam ñu nar a jëriñ kenn duñ ko jëriñ ku dul moom ca la ko borom bi di wax sigil muhammad danaa la may sa xeet juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne kenn du leen xisaab juróom-ñaar fukki junni bu ne dana ànd ak beneen juróom-ñaar fukki junni boo xamee ni nii daañ ànd mu ngi noonu junni bu ne dana ànd ak yeneen juróom-ñaar fukki junni ñu ànd dugg ci àjjana danaa la ko may ci sa xeet loolee mbokk ñi ngi ko amee ci ñaanug yonenti boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonenti boobu nga xam ne nii dana ñaan borom bi subhanahu wa taala ci façon ramm yu bari bokk na ca ramm yooyee mooy ñi nga xam ne nii dañ leen dugal àjjana ca kenn xisaabu leen am na ñoo xam ne nii seeni tuyaaba ak seeni bàkkaar daa yem mu ñaan yàlla yóbbu leen aljanna am na ñoo xam ne tarxiisoon nañ ba yeyoo woon tabbi aljanna mu ñaan yàlla musal leen ci àjjana mbokk ñaanuk yeneen tugoogee dana dem ba ña nga xamee ni nii dañoo jiggi dayoo ba dugg aljanna ba dugg sawara waaye nag dese woon nañ ci ngëm lu toll ni misqaala zarra yeneen bi dana ñaan yàlla génne leen ñu tabbaleen aljanna loolee mbokk da ngay gis ne mooy étape bi gën a ñàng bi gën a rëy ci état bi yowmal qiyaama ca mooy xisaab boobee naka lay demee bu ko defee suñu borom yàlla bu génnee résultat ya ku nekk ñu jox la sa téere soo yeyoo daal di jaar fa nga xamee ne nii moom mooy yoonu aljanna nga ubbi ko fekk yàlla baal na la bakkaar yépp ngay wër say mbokk ha um iqra'u kitaabiya xool leen réussir na àddina laa jëm mbokk loolu muy réussir amma ki saggan ba jaarul woon fi neex yàlla bañ jox ko ab téeréem ci càmmooñam dana ne eewaay aka neexoon ma bañ a jot sa téere aka neexoon ma bañ a xam résultat bi ma liggéey suñu borom yàlla mu ne kooku ci toroxtaange lay doon di sax ca toroxtaange boobee ba faw mbokk jullit téere baa ngoog waxoon naa la ba ñuy waxtaane malaaka ya ne la danga ci am deux pages par jour am na page boo xam ni fajar ba takkusaan ñaari malaaka ngi ànd ak yow di bind la ngay def ci lu baax ak la ngay def ci lu bon su takkusaan jotee ñoom ñu yéeg daal di koy classé ci sab téere yeneen ñaari malaaka wàcc fa seeni bind li ngi fi nar a def ba fajar jotaat ñu yéeg classé ci sab téere téere boobee mbokk boo demee moom la borom bi di wax naan yéefir yi daañ taxaw naan cay waay yaa waylata maa li haza alkitab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha ay waay alkaanga ñeel nañu xoolal téere bi ndekete lépp luñ doon jëf ca kaw suuf amul lenn lum ca bàyyi lu néew wala lu màgg ci jëf ak wax ndekete lépp suñu borom mi ngi ko doon enregistré ca pay gi ñu ngi nii dajeeg moom tey loolee mbokk kon waa keppaar gi yaakaar naa dañuy yemi ni fii ñu bokk xalaat ci loolu ba yàlla subhanahu wa taala dajale waat ñi fi suba ak jàmm ñu continuer di xool yowmal xisaab naka lay terminé ak nañ xisaab ba pare fuñ jëm loolu bu ñu demee it ñu boole di ñaan yàlla ba baa ñu fii dajawaat mooy mbas mi nga xam ni moom la yàlla teg suñu kaw ngir suñuy bàkkaar dong ca dara mënu koo teggi lu dul njéggalam ak yërmandeem yal nañ ko yàlla subhanahu wa taala teggil ba bu ñu fi yàlla bàyyee ba déwén keppaare ji neex na lool waaye nag ñuy daje ci néegub yàlla ba nga xam ne moom mooy néegub yàlla di fa jàng ab téeréem comme ni nga xamee ni ni noonu lañ ko yàlla xéewale woon ci at yu jëkk ya innahu ala kulli shay'in qadir mi ngi noonu mbokk julit wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi doon ñaan képp koo xam ne nii déglu na suñu waxtaanu tey muy ci keppaaru ramadan ngalawaay leeral gi mu daldi ko cay teg ci fu mu mën a yegg léegi laa ko doon dégluwaat bokk na ci bi may joxe misaal dama ne yonent yàlla Isa tëdd na ci bàmmeel lu jege ñaari junni at loolu mbokk njuumte la yonent yàlla Isa mi ngi nelaw ci kaw asamaan yi yonent yàlla Isa faatoogul balaa àdduna tukki lay doog a faatu ñu doog koo dugal bàmmeel lii daal ñi ngi ñaan mbokk yi képp koo xam ne mi ngi séddale waxtaanu tey bi mu booleel ñu ko ca baarakallahu fiikum